gisee pen déggoogum nga doyen en attendant Adama Fall di ñëw. non dégg dégg naa ko. Mhm. Euh, il a fait une analyse très pertinente. Mhm. Euh, sauf que sooy changer de paradigme aussi il faut nga tenir compte ci contexte bi ak époque bi période bi. Mhm. Euh, moi je dis merci Senghor. Ouais. d'avoir. c'est ça. Euh, fait mmh. rayonner. Mmh. la culture la culture. ah je trouve que Senghor a. privilégier ce qu'on appelle la culture d'élite. Les mm. élites. Mm. C'est les écrivains, c'est les musées, mm-hmm. etc. Et malheureusement, son suivant, moom il a été confronté à des ajustements structurels. Mm-hmm. à des problèmes de famille, etc. il n'a pas pu. Mm-hmm. donc euh, quand Wade évolue, il y a eu beaucoup d'infrastructures. beaucoup d'infrastructures culturelles qui ont permis au moins les choses de, bouger un peu de faire comprendre que les hommes de culture étaient pris en compte dans, la, dans les politiques publiques. Mm -hmm. Et euh, rien que pour ça, on dit euh, bravo. Son, son, son successeur, Macky mhm. Sall aussi. Euh, mais vu qu'on est dans un contexte. wolof wolof ah waaw gannaaw dañu nekk ci contexte boo xamante ni. alors euh, je crois que les choses ont beaucoup bougé. ndax euh, en dehors de l'aspect culture simplement. dafa am leneen yoo xam ne da ci rax moom mooy les enjeux économiques les mm-hmm. enjeux et cetera mm-hmm. yëpp dañu dikk dugg ci ba plus nag maintenant technologie mm-hmm. léegi nag moom aussi beneen élément boo xamante ni ñu bari euh, bàyyiwuñ ci xel mais moo nar a nekk nag soit un danger ou bien wala benn acquis moom mooy l' intelligence a sa ah te mu ngi mu ngi dugg ci suñu biir et c' est pourquoi quand on a dit déjà culture donc c' est ndax dafa diis soo xoolee culture rek neuf secteurs la. Euh, soo ko bëggee boole ak sport bi nga xamante ni soo xoolee sport activité wu dynamique la énergie xale. jeunesse xale. mais mhm. culture euh, création la. Mhm. xalaat ci ngay ci ci ngay dëkk. Mhm. pour mën a exprimer. jeune ne dis pas que c'est pas possible. mais ça va très compliqué c'est pourquoi ñun euh, malgré qu'on est dans une confusion. dañuy xaar contenu bi nga xamante ni moom la ñuy indi. Mhm. pour ñu jéem a xool ba xam naka la ñuy kii parce que vraiment voilà c' est est un peu mhm. ci boppu acteur culturel. Mhm. ñu ñëwati <coughs> sport jeunesse et culture donc la position de la culture rek déjà mu ngi nekk. sport <laughs> d'abord <laughs> parce que ki ñu ko dénk aussi. inspectrice des sport la. il faut pas qu'on donc moom son jardin c'est d'abord le sport. d'abord hmm? oui, parce que moom mooy nekk voilà sport jeunesse et culture wàcc. ñu mhm. ni déet un secrétariat d'État. chargé des questions de culture des industries créatives et du patrimoine. Mmh. d'État bi sous tutelle du ministère lay nekk wala secrétaire d'État bi ci sous tutelle PM lay nekk. lay nekk wala. Hmm. mu gën a encore. dafa gën a gën a gën a flou ci ci ci ñun mais on suppose que ni xëy na peut-être daf il sera adossé au ministère de la culture mais day day am aussi ce qu'on appelle autonomie. Mm-hmm. forcément parce que voilà. Mm-hmm. ah on ce mm-hmm. parce que sinon pourquoi. ñëw encore ñu génne benn pan encore benn plan de la culture. loo ci waat ko présidence moom mooy les questions religieuses alors que ça fait partie suñu département mm-hmm. donc ñu nekk dans une confusion boo xamante ni mais comme l'a dit doyen quoi que ñoom li tax ñu def ko xëy na peut-être xam nañ ko mm-hmm. mais on va essayer d'attendre le contenu mm-hmm. une que nag on a le contenu parce que euh, culture nit ñi dañu mode yi dañu changé bu baax sax culture léegi dootul question wu euh, simplement baas c'est mhm. les intellectuels ñoom ñoo fi rek et on a mhm. vu que ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jiitu ñëpp euh, su fekkente ni indi nañ dara ci culture aussi mhm. bariwul ça n'a ça n'a ça n'a pas beaucoup changé ça pas beaucoup bougé et que léegi on a besoin ay visionnaires de nouvelles têtes ñoo xamante ni au moins dinañu xam le contexte xam les contenus xam ce qui se fait <coughs> excuse-moi tu as vu donc euh, comme je on est dans une confusion boo xam ne mais on attend on attend parce que comme on dirait parce que nous avons toujours attendu hein depuis <laughs>